alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mboki téléspectateur TV remarqué une panne technique Facebook et son application de partage de photos Instagram avec même messagerie WhatsApp et Messenger amna na benn panne bu ci am boo xam ne àdduna bépp ko seetlu comme ni nga xam ne moom la ko responsable yi jiite Facebook annoncé ci Twitter ni am nañu une panne d'envergure boo xam ne entraînant la chute de l'action du groupe loolu nag àdduna bépp seet seet seetlu nañ ko ndaxte depuis ci trois heures ba léegi xam naa ko ubbi sa WhatsApp bëgg envoyé message wala sax nga bëgg def leneen boo ko man même ci Facebook ni ko noonu Instagram Instagram tamit ni noonu mel ni réseaux sociaux yi dafa am benn taxawani bu ci am li ko war nag mooy lu ko waral moo di comme niñ ko junjee léegi dafa am benn panne bu ci am bu waral mbir moomu xew bu ko defee am na site bu ñuy wooyee down detect mi ngi leeral nekkat am na panne bu rëy rëy rëy bu am ci yenn zone yi ci àdduna bi nga xam ne rawatina zone des zones peuplées comme lu mel ni ki Washington ak Paris ah, nga xam ni sit boobu sax même léegi dugg ci comme ñu ko France 24 waxee dugg ci daanaka te nekk impossible ah, même mën a sax am adresse boo ci mën a dugg dafay xaw a jafe loolu nag ñu ngi ko noté bi juróom-ñetti waxtu jote Greenwich lañ seetlu panne boobu noonu am na sax benn communiqué boo xam ne nii. ku ñuy wax Andy Stone nga xamni ni porte parole la ci Facebook def nako wax ni ah, ñi ngi yegg ni amna yenn ci ay doomu adama yo xamni mënu mënuñoo aksi ci ah, suñu application bi ak suñu produit mais nak ñi ngi liggéey ci ah, lu yato yato yaatoo ngir ba mbir mi mëna delu ci nu mu gën ak tamit ñi ngi jéggulu mbooleem suñu utilisateur yi nekk ci aduna yépp pour désagrément bi am mom la bind ci Twitter mu melni kon panne bi da nekk panne bo xamni ni nii panne bu yaatu la du ci Sénégal kessé wala sax Afrique mais au niveau international la ah te ñu gis ne Facebook tamit comme selon le site d'internet France 24 mi wax ne le cours de Facebook déjà dafa am benn baisse bu ci am euh, même sax mi ngi ñuy wax ay perte yu ñuy évaluer ci ay 6 pour cent euh, bu ko defee même entreprise bi moom Facebook dafa mel ni panne bi xew nii gannaaw bi ko AFP interrogé bëgg ci xam ay mbir daa mel ni defu ci daal benn réaction buy wane lan moo waral panne bi mais li ñu wax rek mooy am na panne bu am euh, kon ñu xamee ne plateforme bi nga xamante ni nii WhatsApp Facebook lu toll ci ay ñetti milliards ci ay doomi aadama

que koy française Frances Haugen dafa génne woon document boo xam ne document intime la secret muy accusé Facebook di wax ni moom dafay gën a choisir le photo plutôt que la sûreté Madame de famille Dal, daal jëmi profil yi la gën a yittewoo photo comme euh, sécurité des données personnelles qui ni mu ko leerale ci une chaîne bu wax CBS. Euh, laataa muy départ sax mom français française Frances Haugan euh andi won na ci ay documents yu bare bare bare bare yo xamanteni ni dañ ci def ay recherche yo xamni ne mi ngi aju ci walu ci entreprise bi bi di Facebook ak euh, Instagram ci ben article bu ñu publié woon ci mi septembre euh quotidien bi ñi wax Wall Street Journal defon na ci ben Wall Street Journal defon na ci ben article publié ko wax ni à lii di la base de ces informations Qui nga xam ne ni moom la entreprise bi di euh, def ci recherche yi dafa daf koy jëmale ci wàllu adolescent yi mu wax ne tamit am ci benn étude boo xam ne nii dafa doon évoquer euh, lien bi am ci euh corps féminin euh ak yenn ci ay contenu yo xamante ni ñing koy euh publier ci réseaux sociaux yi nga xam ne yooyu sax da ci am ay risque yu ci wàllu wér yaramu wér yaramu xel maanaam wàllu wér yaram ci wàllu xel la santé mentale bu adolescent yi euh, nga xamante ni ñi daal mën nañu jàpp ne comme Facebook instant bii nii mi ngi traversé benn crise moom gannaaw bi ñu notee panne bi nga xam ne nii am na ci ak tamit révélation yooyu nga xam ne moom la ndaw si defoon ci euh, journal boobu moo tudd léegi ak yeneen yeneen nga xam ne dafay euh, yittewoo lu jëm ci profil ka yittewoo sécurité bu données personnelles yi ak tamit ay recherche yo xamni ni dafa jëm ci walu euh, sécurité mentale yu adolescents yi ak batay tamit même dañu wax ni même ci élection américaine élection américaine yi jàlloon gis na ne euh, Facebook dafa fexé ba tëj yenn ah, paramètres yi nga xamni ne day mën tax euh, nit ki di joxé ay xabar yo xamante ni wérut te noonu bi élection yi jàllee dafa daal di indiwaat paramètres yooyu yëpp muy wane ne ay accusation yu ndaf yu ndaw si def jëmee ko ci Facebook kon loolu daal mooy li nga xam ne andiloon nañ leen ko ci seen sit bi di Senwaa euh, TV mu aju ci wàllu euh, panne technique bi nga xamante ni moom la mu am ci WhatsApp am ci Instagram am